en 1998 99 ba à nos jours mu ngi fi mais au début nit ñi dañoo xawoon def pour euh, pourquoi parce que nit ki lu mu xamul nga bëgg koo xamal ñun dañ doon consommer sel euh, iodé euh, sel kii rek sel non iodé dañuy naturel bi rek dañ ko doon jël buñ ko produire ba pare ci lak bi dañ koy dal soit dañ koy jaay wala ñu consommer ko mais léegi nag ak appui UNICEF ak yeneen partenaires yi nga xam ne ñoo ci bokk ak cellule de lutte contre la malnutrition basée à Dakar ñooñu ñoo ñëw dalal ñu ko woon daal à présidence ak ministre am auparavant di Moustapha Niass dañu wax ne xorom bi léegi dañ koy iodé universellement luy lu génn ci laaj bi dañ ko war a iodé ca lañ commencé di iodé ba tey mu ngi dox mais li tax mu xaw a mooy subvention amatu amatuñu produit te produit bi raar na parce que auparavant bi ñu demee ba gars yi euh, jàppale ñu ba ñu jox cinq euh, deux deux fii de cinquante kilos bi mu jeexee dañ ko yombaloon parce que dañ ko doon jaay la kilo à cinquante cinq cent euh, cinq mille francs actuellement kilo bi mu ngi dem ci quarante mille francs te surproduction lay am booba temps nit ki doon produire le producteur de sel ki ci exploité maanaam 10 ton ci toolam tey mu ngi exploité cinquante tonnes wala 60 tonnes regardement qu'est-ce que ça va loolu dafa nekk loo xam ne ni surproduction la su ñu waxee nag ne iodation universelle tey joxuñu moyens yi joxuñu financement bi joxatuñu iode bi iodation ça problème kon day indi problème ma waxal leen ne daal fi ne ni ci ngàcc mbéy fi nekk sàmm fi nekk waaye le gros fardeau ci ñun production sel la bu production sel jeexee ci ngàcc ngàcc nekkatul ngàcc. saison bi su commencé damay dem voyage damay dem Kidira dem Fuuta dem Bakel dem yooyu di jaay di jaay mais boo yoodewut mun nga perdre sa chargement parce que boo yoodewut service yi dem ñu la jàppee dañ naan la baaxul te ba pare mënoo cee mënoo cee jot tey boo ko bëggoon di nga def une journée di ko wër waaw une yoon même 40 mille mais da nga toog une di ko wër doo gis donc euh, boo ko amul boo risqué def mun nga ci perte. en vrai dire bi suñu état suñuy tool ñoo koy récolté suñu ñoo koy ñooy ñooy fere suñu xaalis ñoo koy récolté suñu bopp même bu ñuy stocké fii euh, pendant la pendant la pluie xorom du am ci stock yi ngay jël te day cher état ne boo amoon bu état subventionné avant moo taw mun nga jël euh, say dañ ci jël say bâche bâche donc amoo moyen yooyu donc da ngay mujj. yow say moyens yu ndaw yi nga doon kii si ngay ñëw des fois sax nga ñëw jënd xorom ni desal ko xaalis pour mën a dem ñëwaat fay ko euh, nit da ngay jàng ba pare jàng fi ngay fi nga war a jariñoo mais jàng tout court defoo formation moo moo ki jàngul yéen parce que boo jàngee xamoo dara mënoo dara formé wuñ la dara donc ça ne sert di jóg dem demal ba am maîtrise dem am licence te amoo spécialiste du dara donc surtout ci formation fii macha allah ñu jàngul am nañ lu ñu jàpp mais xale yi jàng lañuy ñaan ñu utal leen formation bu ñu amee fa bu ñu bu jàng bu ñu amee métier boo leen dimbalee ne tuuti dinañ dem waaw. nous avons besoin de formation ak coup de bu ñu nit ñi jàppale ñu dem si kanam. Sénégal kenn mënu koo développé sans. sans jeunesse bi xam gisoon ngeen li fi xew parce que ba genre yooyu pratiquement bi rek ñoo ciy dee parce que bëgg na lu ñu bëgg ñoom am na lu ñu bëgg si seen bopp mais mënuñ ko am da ngay gis ñuy dem sax si géej gi di dee di dugg fii pourtant dañ naa la bu leen dem mais bu leen dem après ñun fan la ñuy seconde fan la ñuy jaar ba mën a am financement fan la ñuy mën a jaar parce que da ngay am lii am lii ñu ne la defal lii dem état nga pare dem après dara du ci mujj aaw nga ñëw ci sport bi ñun ci sport la ñuy yëngatu boo seetee ngàcc na wasa sax terrain sport amul terrain collectif ñii football neen suñ papa yi ñoo football ba bàyyi terrain collectif la ko laa rek collectif amuñ ko du dara loo xamante ni ñun mën nañ see sukkandiku ñun jeunesse bi pour mën a jàppale suñu bopp te instant bi sport dafa baax ci dafa baax ci nit man depuis ñaata at laa nekk laa laa laa am diplôme coaching wala ma topp sport kenn mënu cee am dara ba léegi nii rek salle fitness laa fi organisé mais pour ma am benn financement boo xamante ni état jàppale na ma ko wala ki nekk fii jàppale na ma ko pour ñu mën a suqalitu yaram yi amul man maa jël samay propre moyen parfois ma am lu ma lekk du ma am sax lu ma lekk ma dem jëndee ko matériel ñëw taxawaat loolu dafay métti si ñun après en tout cas ñun jeunesse bi daal bëgg nañ liggéey bëgg neen def suñ bopp mais xamuñ fan la ñuy jaar suñ diplôme am après mooy loolu rek dañuy dañuy démasser àll bi duñ am luñ def duñ am lu ñu wax loolu tamit vraiment bëgg nañ ci ñoo xamante ni ñu ngi ci au moins sax seet ni ñu ci jàppale étudiants yaa ngi fii nii def naa benn liste boo xamante moom laa ko jox plus de vingtaine ñoo xamante ni am nañ seen bac ñu ngi toog fii nii amuñ dara toog ñu ngi toog fii nii samay morom man ak samay rak ba ci sama jabar man dafa am bac mu ngi toog kii mooy papaam kii sama sama kii kenn kenn demul ñu ngi toog mooy li awa seen wax rek da ngay def da ngay jàng ba bàyyi jàng après doo xam si bi la est-ce que di dina dina ko jar est-ce que parents yi tamit dineen jar ñuy jëlati seen xaalis di ko di di ko dugal ci jàng bi parce que da am bac dootoo amati looy def amoo formation booy def amoo fenn foo jëm. ñun man sama jeunesse bi rek man ñoo ma gën a bëgg a ci ñu jàppale leen mais xale yi nga ci ñëpp ay jàngkat lañ macha allah. waaw amuñu bourse seen papa yaa ngi gaañu ñi seen yaay yaa ngi gaañu amuñ ku leen dimbale dangay dem ba laa la wax inscription xale bi sax doo ko am ñun daal ñu ngi nii rek ne mën nga nii rek ni statut waaw ñu ngi góorgóorlu nag fas jom parce que ñun ku ñu gis sax xam ne ñun dañuy daan suñu doole à tout moment ñun toujours ñu ngi liggéey xaaruñu kenn mais fii tey bu ma faralutee kii nii bu amee ceebam du ma si may de loolu moo fi xew waaw su ma farulee baala su amee ceebam du si may fii koré euh, kii pidi koré mari kepp moo fi xew <laughs> waaw loolu moo fi xew faraluma la du ma ma lekk sa ceeb du ma gis sa tissu du ma gis sa dàll amoo man benn relation dangaa toog rek di ma seetaan waaw te man loolu laay bañ waaw parce que man bañkat laa waaw da ngeen ñuy jàppale tamit ñun jigéen ñi tamit ndax jigéen amul doole jàppale leen ñu ñun ñu ngi leen di wër ah. te ñu duñ ànd ak ku amul caaja ah waaw dañoo ragal defet ku waaye tey discours ñu dégg fi ay xale wax ko da nga ñu gën a encouragé da nga ñu gën a may fit da nga ñoo gën a ñax pour projet bii nga xam ne moom la Khalifa Ababacar Sall am mu sottal ko. ñun bii ngeen di moom la suñu kaw di jàmbat moom la Dakar di jàmbat moom la Thiès di jàmbat moom la ku lépp jàmbat ñu xam ko ci compétence am xam ko ci cursus am xam passé xam comme ni ne Dakar c'est le Sénégal en ni mu def dakaar ku ko jox Sénégal noonu la koy defee. li ma gëm mooy nit ñi ñooy Sénégal nit ñi nag mooy li ñuy wax sànq li ne xale yi amatuñu métier. dañuy am baccalauréat maîtrise ak lu ne mais mënuñu liggéey c'est la raison pour la laquelle la formation professionnelle était essentielle pour ñun mais dañu dooroon ci xale yi j'avais mis un milliard dans chaque commune de Dakar dix-neuf communes yi j'ai dit aux gens je donne un milliard par commune balaa at may jeex bëggatuma abri provisoire ci école bëggatuma école bu amul douche bëgguma école bu am suuf bëgguma table ban bu damm bëgguma xale yi bañ am terrain de sport yooyu la ñu d'accordoon ak waa Dakar on leur a donné un milliard chacun sur dix-neuf communes dix ont fait le travail on a continué ñi defoon ñu téye parce que aussi mënoo récompenser doo ñëpp c'est la même chose ici on peut pas fii penser ni am nañu sept mille milliards de budget collectivités locales yi six cent une la les communes rurales la kenn amu ci cent millions de budget wala cent cinquante nan lañu war a liggéeyee je dis aux gens 2009 ñun avec euh, la l'UEMOA on était d'accord pour que le BCI le budget consolidé d'investissement soit décentralisé donc man foofu laa wéeru ma ni man président de la République je vais faire le même test de confiance avec les communes du Sénégal je mets un milliard à la disposition de chaque commune du Sénégal ça suppose bien sûr ñu réformer la code des marché parce que li ma ci gëm mooy mooy li ngay wax léegi suñ la joxee un milliard tabax école tabax dispensaire defar lampe dëkk bi électrique éclairage ak yooyu dootu leen jëggaani de du kuy jóge Kaolack mooy ñëw defar seen école c'est-à-dire la plus-value la valeur ajoutée il faut que fii ñu bàyyi waa ngàcc doomi ngàcc defar école bi doomi ngàcc tabax ko doomi ngàcc équipé ko teen bi lampe bi parce que ci loolu lay amee njëriñ c'est-à-dire le milliard day toog ngàcc ça c'est le premier projet ñun bi ñu yor parce que man li ma gëm mooy koo ko defal ñetti at dootuñu am problème euh, di am contentement bu baax bu rëy rëy rëy ci ñëw bi mu ñëw fii ci commune Ngathie Naoudé parce que luñ yàggoon a bëgg la jàppoon nañ ko ci tournée bi mu defoon euh, fan yee ci ginnaaw. Euh, dafa amoon taw moom moo tax mujj doon yegg si fii parce que moo nekkoon dernière étape bi au niveau du département de Guinguinéo loolu moom moo tax mais euh, lépp nee nañ rattrapé nañ ko tey jii nii parce que kon am nañ kontante bu baax a baax a baax dalal ko fii ci commune du Ngathie Naoudé wax dëgg yàlla yàgg nañ ko séntu fii nii parce que à chaque fois. suñuy militant dañuy laaj ko yenn xalifa fan ci lan la nekk lan moo tax génnul lan moo tax duñ du fi ñëw affaire yooyu noonu kon bu fi ñëwatee bu fi ñëwee tey jii nii euh, dañ ciy kontaan bu baax a baax a baax di ci am mbégte daal. ñun politique dañ koy def euh, di ko def ak conviction di ko def ak principe kon képp koo xam ne dañ koy ànd ñu ànd ak moom li ñu mën a ànd ak moom mooy ànd ak moom ci yi nga xam ne mooy valeurs yooyu may wax léegi euh, te dañ ko gis ci ki nga xam ne mooy Khalifa Ababacar Sall. muy nekk nit ku nit koo xam ne ku dal na nit koo xam ne lépp lu muy def ci raison la koy teg di nekk nit koo xam ne mun na muñ mun na boot te mun na nekk koo xam ne aussi day développer réew parce que xam nañ ko bu baax gis nañ li mu def ci Sénégal euh, gis nañ li mu def ci commune Dakar kon bu xëyee ne ñun dafa soxla Sénégal je crois que ne war nañ ko ko mun a jox gunge ko ci loolu te am ci moom yaakaar aussi ne dana yóbbu Sénégal fi ñu koy xaar incha allah loolu moo tax ñu ànd ak moom. enseignement bi gis nañ ne depuis des décennies euh, ci ay problème rek la nekk donc problème de ressources humaines problème aussi ci euh, euh, ci qualité éducation bi problème aussi ci ci ci ci qualité programme bi mu contenu beeg yëpp yëpp nekk ay problème yoo xam ne lu ñu war a defar la lu ñu war a tegaat ci yoon la loolu noonu yëpp bu ñu ko étudier nag je crois bien que ne Khalifa Ababacar Sall am dana ci am solution Euh, bu tax ñu am enseignement de qualité tax aussi ba lépp li nga xam ne mooy ressources humaines dana mat ba nit ñi mën a euh, jàng nit ñi mën a jàngale lépp tegu si yoon mooy maanaam njàng meeg njàngale mi daal di ñoŋati daal di nekkaat fi nga xam ne moom la nekkoon euh, dans les années passées ñu xam ne kat ne nekkoon nañ en un pas en avant ñuy jot régime PDS avant ñuy jot aussi régime par exemple APR mais Euh, loolu noonu rek la ñuy ñëwaat tegaat fa suñu tànk gën a yokkaat encore li nga xam ne loolu moo fi nekk. population bi nekk na population boo xam ne ay jàmbaar lañ parce que ñu ngi yëngu ci domaine yëpp bu nekkee ci njàng mi gis nañ fi ay doctorants ñoo ngi fii toog ci biir dëkk bi gis nañ fi ay maîtrisards ñoo ngi fii ci dëkk bi toog ñi nga xam ne ay diplômé lañ ci yeneen ay institut ak yooyu noonu donc njàng mi moom nekk na loo xam ne fonk nañ ko bu baax a baax mais nan la def ba liggéey loolu mooy problème en même temps boo seetee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans le secteur informel. di liggéey ci xorom si wala ñu liggéey ci mbéy mi ci sàmm mi ci napp geeg yëpp nekk nañ ñoo xam ne aussi ñu ngi ciy activé wu bu baax di ci xoslu mais malheureusement amuñu ay mesures d'accompagnement yoo xam ne mun na tax ñu daal di euh, dem ci kanam may wax nag ñëpp ñi nga xam ne ñoom dëkk fii ci commune de Ngathie Naoudé suñu chance la suñu chance la pour ñu euh, génn ci situation bi ñu nekk nii mooy dem ci développement dem ci émergence et pour loolu il faut ñu mobiliser wu dem votel Khalifa Ababacar Sall donc au soir di euh, comment dirais-je des élections le 24 euh, comment 2024 ñu daal di jël réew mi bon Sénégal daal di dox.